du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. حب وود ونصح أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مبكي جولي دي دار البر والإرشاد أك دار البر تي في نيو ديل سواتك يين فم نيجن كو خمي رك نيكو شيخ الحاج ثار بريزانتي ان شاء الله تي لاج بي موم موي ني ديك رك تي تيغين ييغا خامتاني warna ki ak amé ko ci biir aj ak jikko yi nga xamante ni war na koo amee su ko doon def alal ixtisaar mooy aj jaamu yàlla bu rëy la yàlla nañ ko yàlla yu wërsëgal di ko wërsëgal boolem jullit amin ya rabbal alamin jaamu yàlla la boo xam ne dafa ànd ak mbégte waaye jaamu yàlla la boo xam ne dafa ànd ak coono nag ndax aj xam ngeen ni coono la ndax ndaw moo ko mën a def ndax la ca aju dafa bari bokk na ci nit ki su dee waajal aj walla mu bëgg aju mu góor góorlu ba waxtaan ak ñi nga xam ni xam nañu diine te xam aj ñu mën koo yee waxal ko buy aj nan la koy waajalee mooy comme ni ñu def beneen bi mu def istixaara te istixaara mooy mu julli ñaari rakkaa tànnloo yàlla subhaanahu wa taala ci lii mu bëgg a defi mu nekk jaamu yàlla subhaanahu wa taala waaye beneen bi mu góor góorlu ba jàng walla mu laaj ñu xamal ko aj nan lañuy aje ndax prepare sa xaalis ba pare dem bërëb bu mel ni màkka te mënoo fa def lu tax ñu ne kii kat aj na su boobaa dafa ni solo beneen bi mooy na borom bind wasiyaam mooy bind testament mooy xam mankat, mangi man kat maa dem at, waaye bëggoon naa nangam ak nangam ak nangam sama ginnaaw ndax dem bi mën ngaa dem indi bakkan mën ngaa dem do indi bakkan kon su boobaa nga def ndénkaan loo xamante ni mi ngi aju ci say bor aju ci say mbir donte nag kii aji moom ñàkkoon bor moo gën ci moom waaye bu fekkee bor la boo xam ne am na yaakaar ni dina ko mën a fay waaw su boobaa loolu dañuy wax ni amul benn jafe-jafe kon na bind ndénkaaneem li mu bëgg mu wuutu ko ginnaawam incha allah waaye beneen bi mu gaaw ci tuub tuub jëm ci yàlla ndax lépp lu waay di def dafa war a tuub ndax yàlla nangul ko bi gën a am solo mooy raddul madalim mooy àq yi mu yoral nit ñi mu jéem koo delloo seeni borom bu dee alal la bu dee juntuwaay la bu dee yeneen mbir yu mu mënti doon mu xam ne nag la muy defi comme jaamu yàlla la mu waajal ko nag suy génn këram su mënee julli ñaari rakka wala ñeenti rakka jaamoo ko boroomam góor-góorlu nag sàmm boppam bu duggee avion ba nga xam ni moom la war a jël am na ñaan bu mu war a ñaan gudd na lool waaye kiy aji war na koo xam kiy tukki war na koo xam mhm. su boobaa ñaan boobu du ñàkk bu nekkeek mbooloo mi ci biir avion bi du ñàkk ñu ko ko defal waaye nag loolu la ca gën a gàtt mooy mu xam mooy subhaanalladi saxara lana haada mm-hmm. wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun mu moytu nag loru wala mu lor keneen mm-hmm. bul aji di tooñ walla di loru wala di lor keneen incha allah yii boo ko tënkee ci wàllu teggin yi bokk na ci yi nga xamantene ne dina dimbale nit ki ci yoonu ajam mu def nak bu jeme ci bir aj bi ana yan moko fa war inshallah rabbi barakallahu laka shaykhana ala hadha tawdih wallahi wax nga fi ay nasaih yo xamne yuktabu bima'i adh-dhahab wa waaye doyaluma de dama bëgg nit ka ngi ni leji agna fi mu wara jele ihramam yan teggin la wara a balaa muy dugg ci aj bi ki nga xam ni dafa dugg wara waajal ak mhm. ñëw Madina mhm. xam nga bu dee sénégalais ak ñu mel ni ñoom Madina la ñuy ñëw waaw bu ñu ñëwee Madina am na am na yu ko fa xam yoo xamante ni mën nañ ko faa def loolu ziyaaraat lay tudd mhm. bokkul ci aj bi euh, bi ci jiitu mooy masjidu nabawi fexe góorlu di fa mën a jullee waxtu wi juróomam ndax kat jullee ci naba nabawi benn julli gu nekk junni ràkka lañ la koy bindal su boobaa loolu nit ki góorgóorlu di ko def waxtu wu nekk dafa am solo yàlla nañ ko yàlla may may ko ñëpp amiin ñaareel bi ñu dem ziyaara ji bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa nuyu ko ñaanal ko waaye duñu ko ñaan ndax yonent bi bu doon kuy maye wala mu am du génn àdduna ndax yonente bi sallallahu alayhi wa foofu nga xamante ne fa lañ ko denc muy raw doom fa la nekk moom ak Abu Bakar ak Umar kon buñ ñëwee foofu di ko ziyaara dañuy ñëw tàll si ñoom assalaamu aleyka ya rasulallah assalaamu aleyka ya Aba ya Umar noona la ñuy def mooy ñu ñaanal yonent bi nee na saa bu ko jullit defee yàlla dana ma delloo sama ruux ma jógaat fay borom. waaye ngallaawaay bu fa taxaw di ko ñaan soxla. yonent bi fajal ma yonent bi nangam comme ni mu xewee loolu kenn du ko def kon loola mooy ñaareel bi ginnaaw bi nit ki góorgóorloo bay jullee ci masjidu nabawi ñaareel bi mu dem ziyaare bàmmeel yonent bi ñetteel bi nag mu jëm rawda sharifa mm-hmm. rawda sharifa nga xamante ni. mom la yonent bi wax ni ma bayna bayti wa minbari rawdun min riyadil janna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena digeunte sama néeg bi di néegu ya aisha ak minbar bi may taxaw di kàbbar ben jardin la ci jardin aljana yi boobu jardin nag gis nga euh, waa Madina góorlu lañ ba ay moquette yu verte lañ falal mhm. léegi dañu ko séddale ba mbooloo mu ñëw dañuy ànd ñu may leen ñu dugg fa 15 minutes toog fa ndax ku fa toog yaa ngi toog ci àjjana yàlla nañ ko yàlla wërsëgalee wërsëgalee ko ñëpp ñeenteel bi mhm. mooy ñu dem ziyaara ji baqi mhm. baqiul xarqat nga xamante ni mook jumaa yonente bi ñoom ñuy sës fa la suul li ëpp ci saxaaba yi soxna yi yonent bi yépp fa lañ leen suul ba mu des ñaar muy yaay Xadija kon gis nga loolu nit ki war na faa dem ziyaare ziyaare nag ni ñuy ziyaare bàmmeel ci Sénégal ak ca Mauritanie moog ni ñu koy defee baqi ñoo yem doo fa dugg di fa ñaan kenn lenn wala di fa jàng ay ixlaas ak leneen waaye dañ leen di ñaanal yàlla bi ci jiit mooy assalaamu aleyka diyaaral qawmi min al muminin wal ba ñaan boobu jeex su ko defee juróomeel bi mooy ñu dem ci fi ñuy tuddee maqbaratu shuhada u uhud ñu dem fa nga xamante ni ñu shahidoon ci uhud fa nañ leen denc war nañ faa dem ndax uhud digganteem ak madina daanaka jege na 3 mètres 3 kilomètres suñu fa jógee ñu dem xubaa suñu fa jógee dem la xiblatay ni loolu mooy ziyaaraat yi nga xamante ni war nañu wala bokk war nañ koo def mais tekkiwul ni dafa war suñu kaw ndax ziyaara la bokkul ci aj bi loolu bu ñu ko xësee ba def loolu mooy li ñu war Madina waaye ñu bàyyi xel ni Madina nag bu fa kenn for bu fa kenn dagg garab bu fa kenn witti xob bu fa kenn jël loo moomul bu fa kenn laal loo moomul ndax dëkk bi yonent bi da koo bëgg da koo sopp waa Madina dañoo am xorma allahu yàlla da leen jox xorma su mat sëkk sëkk incha allah su ko defee nag loola mooy li ñu xam ni mën nañ koo def ca Madina mu def nag nan la ñuy waajee pour pour jëm dugg ci at bi incha allah. alhamdulilah mbokk yi dégg ngeen leeral boobu nga xam ne cheikh bi wax na ko fa wax na leen ziyaaraat yi ni muy demee te lan nga fa war a def tamit wax na loolu yëpp cheikh bi ñu ngi nii nag léegi war a jóge Madina. xam naa ne dañ war a dem si place bi nga xam ne moom lañ war a jëlee ihram bi foofu fan naka la tudd ak naka la ñuy jëlee ihram bu ñu nekkee ci suñu hôtel mhm. ba nga xamante ni war nañoo dem nga xam ne moo xam dañuy dem ca aj ga mhm. euh, diggante bi nag am na ñetti façon ajiin mhm. am na bu ñuy wooyee ifraad maanaam nit ki dafay ñëw def aj kese kese waaye am na lu ñuy woowee xiraan mhm. nga xamante ne nit ki dafay aj umra mhm. am na bu ñuy woowee tamattu te mooy li ci gën inda jumhur mhm. nga xamante ne boobu moom mooy umra ba pare doog a aj euh, ala sabiri ixtisaar tamattu laay jël pour mu gën a gàtt voilà tamattu mbokk yi bu fekkee jóge nañ Madina war a dem ñu ko jëm fi ñuy woowee ab yaaru ali dinañ koy wooyeree biiru adi mhm. turam bu njëkk moo nekkoon Zul Xulayfa Zul Xulayfa Zul Xulayfa boobu nag nga xamante ne mooy ab abiyaaru ali mhm. foofa la ñuy jëm mën nañoo préparer suñu otel ñi nga xamante ne dañoo war a wàññi seen karaw ñi nga xamante ne dañoo war a seen karaw naq ak yu bi demee noonu dindi ko jël sa parfum jël jël sa ihram suñu ñëwee ba biir ali wala abiyaaru ali mhm. ñu sangoo foofu ku mu neexit mën naa sangoo hôtelam nga daal di jël sa ihram nga armal bu dee góor jigéen di moom mu sol yéreem jigéen rek la ñu may mu sol lu ñu ñaw mhm. mais bu dee góor ñaari làmbaay lay am lu mu woddoo ak lu mu taraxlaayoo mhm. ci abra eh, abriyaaru ali boobu nag foofu la ñuy yéenee suñu umra mhm. bu ñu fa sangoo ba pare wala ñu ñëw fa jàpp waaj def suñu armal foofu lañ waxee labbayka allahumma umra yàlla ñu ngi lay wuyu ci umra ji kon su boobaa bu ñu jógee foofu nag ñu nga jëm màkka dugg ci kaar yi tàmbale nag di labbayka wu nag tëx ba diggante boobu ak euh, màkka jege na ay cinq cent et quelques kilomètres macha allah góor ñi di labbayka wu ca kaw jigéen ñi di ko wax ndànk-ndànk noonu la ñuy àndee incha allah di ko def laaxar wana ku sonn mun naa noppalu waaye li ki jaamu yàlla bi gën ci jamono labbayk allahumma labbayk allahu akbar moom la def bëril ko lool mhm. suñu yàlla dimbalee ñu ñëw ba ak si màkka mhm. suñu accès suñu hôtel dañuy daal di teg suñuy bagage mhm. bu ñu tegee suñuy bagage fu ñu jëm ñu jëm ci umra ba dem def suñu umra ndax moom la ñu war def ndax ñun dañuy tamattu naam suñuy def suñu umra nag dañuy àndaat dem masjidul haram masjidu xaraam boobu nga xamante ni mooy jumaa ji nga xam ni moom la ñu njëkk a tabax ci kaw suuf ndax kaaba gi la inna awwala baytin wudi'a linnaas lalladi bi Bakka kon su boobaa li war ci jullit bi bu agsee masjidul xaram bu duggee teg tànkam rek ana wax bismillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik man yàlla maa ngi lay ñaan nga ubbil ma bunt say yërmande mhm. soo ko defee ba pare nag nga dox jëm ci biir muy bërëb bu yaatu Cheikh mm-hmm. Allaaji bërëb bu sedd bërëb boo xam ne jullit bu ñëw ba na ci cabax mm-hmm. li ngay njëkk a yëg mm-hmm. mooy la ma doon julli yépp di ut xibla tey maa ngi nii nar a jàkkaarloo xibla allahu dara gënul rëy loolu ci xolu jullit moo tax booy ak si jooy yi day bari nit ñi dañuy daanu nit ñi dañuy crise lan moo tax mooy la ñu doon yéene ci seen dund tey mi ngi nii yàlla may na leen ko. allahu akbar su loolu amee nag ñu dox jëm ci biir dafa xaw a yaatu. soo séenee kaabal musharrafa la ngay njëkk a def mooy tàllal say loxo. ne allahumma anta salaam. wa minka salaam. fa xayyina rabbana bisalaam. bokkul. allahumma anta salaam ka salaam tabaarakta yaa boobu boobu la ñuy def ci boo boo sëlmalee ci julli waaye bii fa xayyinaa rabbana bi salaam mm-hmm. mooy boo jàkkaarlook alkaabal musharrafa mm-hmm. su ko defee nag nga daal di jóg nag jëm ca kaaba ga mm-hmm. daal di def sa tawaaf tawaaf bi juróom-ñaari sawtu la waaw boo defee tawaaf ba pare puus tuuti dem ci maqam ibrahim kenn mënatu koo jot ndax nit ñi dañu fay bëri lool lool hmm. nga arrière foo jullee rek ci maqam ibrahim la bokk hmm. nga julli fa ñaari rakka ginnaaw bi nga defee sa juróom ñaari wër kaaba ba pare hmm. nga foofu nag maa ngi dénk bépp jullit bërëb la bu metti ndax ñépp fay daje ay millions ngi doomu aadama daje du yomb allahu akbar xeet yu xamantewul du yomb ñu déggantewul làkk du yomb ay jëmm yu tolloowul du yomb ay couleurs yu nuroowul du yomb loola moo tax borom bi ne fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuuqa wala jidaala fi lxajj képp koo xamante ni dogu nga ci aj boo demee màkka bul tontu bul xuloo bul gaañe même buñ la gaañee bul saaga même buñ la saagaa bul lor même buñ la loree ndax li nga bëgg mooy yàlla jéggal la mhm. moom la sa moroom bëgg kon su boobaa na nga sóor nga jéggal ki dal sa kaw te tayu ko mhm. même sax bu dalee sa kaw nga jàpp ni tey na ko bañal ndax mhm. seytaan na day bëgg a yàq sa aj su ko defee nag nga ñëw ci côté maqam ibrahim julli fa ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kul yàlla kafirun bi ci topp faatiha suuratul ixlaas mm-hmm. suñu fa jógee ñu jëm nag fa ñuy wooyee safa ak marwa war a daw safa ak marwa muy juróom ñaari yoon yooyu mm-hmm. suñu fa jógee ñëw nag wàññi suñu karaw daal di def li ñuy wooyee juróom ñaari yoon yooyu mm-hmm. lañ bëgg nga leeral ndax boo jógee safa benn nga dem marwa noonu ngay compter ñaar ndax da ngay delluwaat. déedéet da ngay jóge safaani benn. ñëw marwani ñaar de ñaar. ñëwaat safaani ñett ñëw marwani ñeent. noonu lañ koy defee incha allah. baarakallahu laka ala hada baarakallahu ala hada tawdi dafa mel ni léegi boo defee safa wal marwa. Hmm. léegi lana la warati. léegi lii la warati moom mooy dem taxallul rek mooy jeexal nga. Hmm. umra bi moom jeex na. Hmm. umra bi jeex na léegi da ngay dem rek nga wàññi sa kawaat. bu dee jigéen ñi ñoom du ñu kii seen karo létt yi cat rek lañ ciy dagg tuuti tuuti noonu la ñuy def insha allah dem dellu sa hôtel xaar ñaari fan wala ñetti fan nag war a jublu ci ak loolu la ñu wooyee taxallul mooy yi araamoon ci yow ba nga ihraamee léegi commencé am na yu la ci mën a dagan mooy nga dindi sa ihraam solaat sa yére mën di dox say soxla ba yow mu tarwiya nga jublu ci ak insha allah démb si tafsir bi dañ la dégg nga cof loo xam ne neexoon na si nopp yi torop mm-hmm. mooy na soo nekkee sa néeg fii mm-hmm. Eh, nga julli si semaine bi mbaa si weer bi mën ngaa am cent cinquante julli boo demee ba nga xam ne léegi julli nga ah, mën ngaa am eh, quatre-vingt-dix mille julli su fekkee ne si at bi la mm-hmm. waaye nga ne juróom juróom fukki at yi su fekkee ne juróom fukki at nga am cinquante ans nga am mm-hmm. waaye léegi nga ne nit ki bu demee mu julli benn julli nga ne loolu ñaata la ben julli ci masjid haram lolu mi ngi nek téméré junni julli kon kon oustaz kon fofu ken waru ko foye ken waru ko foye motax gor gor lu ba am lu mu ajé na fexe waxtu yëpp diko fekk suku mané inshallah lolu ken waru ko sagane allahu akbar inshallah légui tahallul amna pour ñu buñ la sonal torop torop légui kañ ngay jëlat sa ihram bi yow mi nga xamné yow ya def tamattu bi bi ngay jalaat sa ihram mooy li ñuy wooy yow mu tarwiya mhm. bisub juróom-ñetteelu fan ci tabaski ga mhm. juróom-ñetteelu fan la ñuy xëy ci suñuy hôtel yoor yoor mhm. bu ñu xëyee yoor yoor sanguwaat ba set bu ko defee jëlaat suñuy armal foofu nag ñu yéenewaat ne labbayka xaj hajja léegi nag yàlla defoon naa umra ba pare maa ngi lay wuyuwaat ci aj bi fas yéene jëm munaa allahu mooy ci bisu juróom-ñetteel bi. bu ñu àggee munaa. nga xamante ni guddi jot na. mooy nekk guddi juróom-ñeenteel bi. kon bu ñu fanaanee munaa xëy rek jëm nañu arafaat. bu ñu xëyaatee rek ne arafaat ñoo ngi diggante munaa ak arafaat sori na. oto yi dañu jël nit ñi incha allah ñu dem arafaat nga xamante ne mooy aj bi li tax ñuy wax aj arafaat. bu ñu demee arafaat nag fa la ñuy nekk yendu fa. yendu fa di tudd yàlla di ñaan yàlla di jàng alquran di zikr waaye lu fa gën a rëy ci arafat mooy la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulku lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir lan mooy shahid bi yonente bi sallallahu alayhi sallam nee na afdalu ma qultuhu ana wannabiyuuna min qabli la ilaha illa allah li gën a rëy ci li ma wax man ak yonente yi ma jiitu mooy la ilaha illa allah kon arafat di zikr zikr boobu moo gën a rëy ci ñu fay def soo mënee dem yëg ca montagne ba fa la alhamdu soo ko mënul foo taxaw arafaat la arafaat lépp arafaat lay doon foo taxaw waaye góorgóorlul bu fa nekk ci àdduna bu fa nekk di waxtaane ay caaxaan nekk fa di tudd yàlla di yokk sa yiw di yokk say tuyaaba ba tàkkusaan jot bu tàkkusaan jotee nag foofa lañu ñu war a jóge nag ne Muzdalifa ñoo ngóog wara dem fanani muddalifa Fofu tamit nekk àll boo xamante bu yaatu la kër tëndeng kenn amut lolal xanaa basang boo yóbbaale woon boo yóbbaale woon ci suuf sa ngay tëdd foofu nag la nit ki yégee tumuranke dëgg-dëgg président ministre député milliardaire borom alal Ken du xàmme Ken? di nga rombanteeg nit di wax ak moom ndeke président dëkk la wala nga rombanteeg nit di waxante ak moom ndeke ab multi milliardaire la waaye fii ñëpp a ñëpp a yem kenn tanewul kenn kenn ëpplewul kenn ndax dañ fee ñëw ngir jege borom bi foofa nag bu ñu fa fanaane ba fajar jullee fa fajar dañuy xaar tuuti naaj bi génn nag keroog mooy yawmul hajjil akbar dafa mel ni danga nga wax ne saan lañ fay dem léegi dafa mel ni kon timis ak gee foofu la ñuy fekk. timis ak gee ñu ngi koy jullee ji musdalifa. waaw musdalifa laa wax. waaw bu ñu léegi dañ koy boole ndax duñ ko boole. dañ koy boole. Mm-hmm. dañ koy boole. Mm-hmm. fanaan fa. wàññi ndax duñ wàññi. dañuy wàññi fanaan fa. bu ñu fanaanee xëy. Mm-hmm. ci lañu war a jëm nag fi ñuy wooyee euh, euh, jamraat. jamraat waaw su jegee jamraat foofu sànni jamra. Mm-hmm. muy jamral aqaba bu ñu ko sànnee ba pare nag mm-hmm. dox jëm kaaba ga. dem tawaaf dem def tawaaf loolu mooy yowmul xajjil akbar bi ngay dégg ci alquran. lu am solo la waaye li ci gën a neex te daw yaram mbokk. mooy bu ñuy jógee Muzdalifa euh, jëm kaaba ga. labbayk allahuma wallahi gëm naa ne malaaka yi dañuy ànd ak nit ñi allahul mustaan jinne yi ànd ak nit ñi montagne yi dañuy tontu labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر بنيوي فوفنك طواف ورات juróom ñaari yoon mm-hmm. defaat dañu defoon ci umra ba mm-hmm. mooy delluwaat mm-hmm. julli ñaari rakka ginnaaw suñu tawaaf ci maqaam ibrahim jóge fa demaat defaat safaak marwa suñu fa jógaatee nag dem watu ji insha allah ñi watu walla wala ñu wàññi seen karaw su ko defee sangu ji taxallul mooy at jeex na insha allah waaye am na fi nga xam ne dama la ko bëgg a laaj xam naa loolu moom nekkul si faraid yi nekkul si arkaan yi mooy dem zam-zam ak lan mooy njëriñu zamzam njëriñu zamzam mooy zamzam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis zamzam na ci naan ba biiram fees moo tax ñu lay wax ni toujours boo defee sa umra boo demee ci zamzam naanal yonent bi nee na naanal ba ba mbàq yi bu benn pax des te feesul ndax lan moo tax zamzam day faj bépp feebar day dindi bépp aaju allahul mustaan foofu nit ki la fu mu toll boo gisee zamzam naanal ñaanal tey soxla ان شاء الله ربي جيتنا بن واي بو خامتين دا دون دون واخني موم فمو تول بو يري دم دار على لا نيان يالا الله المستعان على لا نيان يالا واي يالا مو جينا كو جخ على الحمد لله لان زمزم لما شرب لما شرب دم دم لما